يا نبي السلام عليك تيفا تي في دي بيديو بلين دي جندي تي قدرتو التيجانية سلام عليك تيفا تيفافون تلفزيون لا لميير دو التيجانية mbokk yi ñuy seetaan ci seen gën gi te li Tivaouane TV ñu ngi nag ak soxna ku mu Umu Kalsum Mbaye fas yéene waxtaan ak moom lu jëm rek ci mbas mi nga xam ne dara la ne àddina bi yëpp ba ñëw fii ci suñu réew muy jàngoro jooju di coronavirus coronavirus nag nekk loo xamante ni yaay booy lu ëlëm nit ñi la euh, yaay ginnaaw bu ñu la nuyoo ziar la looy indil mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci seen gën gi télé ci feebar boobu. feebar bi da xanaa ko indi. moom mi ko indi it kenn mënu koo jeexal ku dul moom xanaa nu toroxlu rek xam ne ay jaam lañu te jaam nag day toroxlu ci kanamu boroomam tuub sunuy bàkkaar ñaan yàlla mu jële ko fi moom mi ko fi indi ah Seydi Hadji Malick nag am na lu mu ci jàngale woon waaye sëñ Babacar Si kenn demul mu des def daan wax bu jàngoro amee di leen jàng yaa xaadiran yaa muridan yaa xaayiman bi nafsihi haasa maradun jadidun fak fi naa min baktihi yal nañ ko yàlla felal moom mi mën a fel ah ñaan nag dëkk bu mu eggul yàlla bu mu faam waaye dëkk bu mu ñëw yal na ko fa yàlla jële ku ne xam na ni ministère de la santé sonn na waaye ku ne xam ne sunu président sonn na nit ñi lin leen digal nañ ko muy wàllu cet gi ak wàllu toog ci kër yi bu nu ko defee rek incha allah léegi yàlla jeexal ko am na ñoo xam ni nag bëgg na noo toog waaye amunu lu nu tooge ndax ki nga xam ne daf daan yor boolu tamaateem di ko jaay bu ci amee 1000 francs dugge ko boo ko bëggee toogloo da nga koy jàppale nan jàppale gor yi nga xam ni mënunoo jël seen loxo di wayaan mënunoo tàllal seen loxo lu dul doyloo yàlla mais ki doyloo yàlla nga toogloo ko da nga ko fay fekk dara kon loolu daal ñoo ngi koy ñaan président ak ñi koy jàppale te xam ni am na ñu ko yayoo nañ ko jox ñi ko yayoo mbokk yi kon nag mi ngi noonu eh, li soxna si wax am na solo ñu wax ni restez chez vous ngeen tok seen ay kër li docteur yi wax ñu bayyi ci xel ci prévention yi ndax dafa am solo moy bo génné bala ngay dugg ci kër gi nga raxasu ba set bala nga nuyo wala ngay def dara so nekké ci biir kër gi ab diir lu tollu ci fukki minute wala fukki minute ak juroom nga dem raxasu diko def xalé yi diko def jigéen ñi di ko def rawatina jigéen ñi nekk ci wañi ñu bayyi xel lool ci antiseptique yi nga xamni ñu ngi koy def ci seen yoxo ndax lee moom alcool la te boo ko ci defee mu tooy noonu xeb nga jubali ca gaz ba man naa créer leneen kon képp koo xam ne ni itam raxasoo nga antiseptique nga am ab diir ci juróomi minute wala ñeenti minute mu fendi ndax gaaw naa fendi nga soog a jëfandikoo li nga xam ne mooy allumette yàlla na ko yàlla jëlee ci réew mi képp ku mu dal yàlla na ko yàlla saafara. waaw ñun daal ñu ngi wéyee ndigal rek. Mhm. li ministre de la santé wax ñu ngi ci. xam nga bi ngay yéeg léegi fekk ma teg. satala gi teg yi mu àndal hmm. xam nga raxasu nga door a yéeg set dafa baax ci jullit même bu dul feebar bi nit ku baax dafa war di set hmm. ndax set dafa baax ci jullit waaye ñu ngi ñaan daal hmm. ci barke mag ñi ak seen leer ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yàlla jeexal ci barke yonent bi yal na ko yàlla jeexal xam nga li fànq programme yu bari te ku ne xam na ni euh, ñun ci programme lañ dëkk ziar général dafa fomm mu soxna umu xayri fomm cinq mars mhm. di siyaaru daayiratu ni amati dafa fomm mhm. suñu activité yëpp fomm na dematuñu ñu ngi toog mhm. kon nag yàlla mi nga xam ne moo ko indi yàlla na ko fi jëlee ci barke yonent bi ci barke leeru mag ñi barke Seydi Hadji Malick ya nabi salaam alayka TV di biddéew bi leen di gindi ci xadaratu ak tijaaniya Tivaouane télévision la lumière de la tijaaniya